ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier Samagal TV mi ngi ñëw ci seen douzième numéro sama espoir sama espoir nag tey ñu ngi ko jëlee fee ci Thiès bergerie waa kër Cheikh Awa Balla sama espoir bii mi ngi tudd expert expert comptable am presque 5 mois Pathé bi ñu koy présenté kon sama espoir tey mi ngi jóge Thiès bergerie waa kër Cheikh Awa Balla ak Pathé jërëjëf. waaw sama Samagal TV. waaw kii mooy expert waa Samagal TV kii mooy sama espoir man daal laa war a dugal léegi xam naa mu dugg ci cinq mois am waaw bu amee six mois rek waa sama gaal di kaat xool si ko waaw expert comptable daal a ngi nii di doomu VAR VAR VAR di doom ci préfet ak kura yaa di doomu magistrat di waaj a dugg cinq mois am muy expert comptable daal mu ngi nii ñu ñëw xoolaat ko waaw incha allah ci kàttan yàlla ah toppatoo bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñu daal waaw maa bëgg nag booy ñëwaat ngeen ñëwaat mhm. kii xam ni champion la waaw jël bu mag la juule maa jëndi woon baam yow eh. maa jëndi woon baam moo amoon 164 Thiès ñëw dem da dem Dakar présenté ñëpp keroog bi ma paata wooyu ci guddi gi man ko kii moom jëndal rek kii bu ëllëgee ndam ca kanam rek kii kër bergerie bu mag ba jógee Fall et maa la ko wax à đưa nga am ndam nag léegi waaw waaw